sëriñ bi moom daanaka buy ñëw day mel ni day indaale maanaam énergie bu bari boo xam ne bii buy dem rek daal di ñu koy daal di ñu koy bàyyeel bu ko defee ñu gën a laxasaayu rek gën a nekk ci liggéey bi liggéey bi nag comme ni ngeen ko gisee liggéey bu bu yàgg boo xam ne bii mi ngi bëgg a am ab diir waaye fi mu ne xel mi ngi dal bu baax a baax a baax ni mu ko waxee moom it ni xelam dal na. Euh, ñuy ñaan rek ni nga xam ne moom lañ ko tàmbalee woon yàlla diñ ci defal sutura ba fii ñu egg si e, mu egg ak jàmm xam naa ni mbokk taalibe yi yàkkamti nañu lool ubbite gi waaye day ab liggéey boo xam ne bi ñun liggéeykat rek lañu ki ñuy liggéeyal mooy sëriñ bi kon sëriñ bi moo yor kàddu gi moo yor baat bi bu ni woon suba it nañ ko ubbi ñu mën ko ubbi suba ndaxte fii mu ne mënees na nii mu mel ku ne xam na ni daanaka Euh, juma ubbi nañ ko te tollul fii juma ubbi nañ ko te rafetaay bi eggul fii te commodité yi ci am maanaam li nga xam ne lépp moo war a mën a ànd ak juma lépp a ngi fi waaye nag sëriñ Touba boo koy jox doo ko jox lu baax li gën a baax nga koy jox loolu rek moo ñu ci bàyyi ñuy kocc koccal di gën a rafetal ak di eggale lu tuuti tuuti rek lu ci des ci ay carrelage ci soror yi ak ay euh, loo xam ne lii rek euh, branchement test yi nga xam ne dañ koy def ci courant fort beeg courant faible bi ak vidéo surveillance yi loolu rek moo ci des waaye daanaka neexoon sëñ bi bu subaa it mu ne nañ ko ubbi ñu ubbi ko waaye comme ñun ubak ak tëj du suñu wàll ki mu doon wàllam te moom kàddu gi lañ koy bàttaleel lu mu ci wax rek ñu ànd ci waaye liggéey bi daal mën ngeen ko constater gis ngeen ko ni mu mel nii. en emprise wu emprise wu mosquée bi nag bokkul ak ñaari ëtt yi parce que ëtt bi ci kanam mat na hectare ñaari ëtt yi ci ginnaaw war na mat ñaari hectare surtout nag ëtt bi nga xam ne moo fi jumaa ji ne di un hectare et demi emprise wu jumaa ji rek mat na douze mille mètres te xam nga booy xayma te pratiquement saal yëpp saali jullikaay lañu dafa am saal yu ndaw ak saal yu mag ëtt bu mag bi nga xam ne mooy ëtt bu mag bi rek lu war a jege juróom benn junni nit dina ci ne wàllu soxna yi ci kaw ak ci suuf daanaka genn wàll gu toll noonu mën na caa nekk xam nga fukki junni daal di ñëw te boolewul ak yeneen yi nga xam ne jàkka ju ndaw yi la muy jàkkay jigéen ñi ak jàkkay góor ñi booleeg saal yi nga xam ne ay saalu majaalis la yooyu yëpp bu it jotee wala euh, julli dañ koy ubbi kon bu douze mille yi day loo xam ne lii lu ñu wax nii la rek waaye mën na ko ëpp mën na ëpp lu mel noonu nag ci réew mi ak ci bitim réew fii ba ci ngay dem ca réewu naar yi da fu mel lu mel ni kaaba ga rek nga koy gisee ak yeneen i xeeti jàkk ak i jumaa yu mel noonu waaye nag bu fekkee ni dañ cee bëgg a boole ëtt bi nag boole ñaari ëtt yi loolu kenn xamul ñaata nit a fi man mën a ne waaye ci biir ak ci biti lépp waajal nañ ko ba daanaka ku fiy julli daanaka doo am benn benn benn benn coono واذل المكان الجليل واشف جميع المسلمين أجلا ثم قهم خوفا وحزنا ونجهم وعافهم وجبهم ولا تواخذهم بكل ذنبهم abada أداوما لأكبر القبائل ولا تباقصهم بما لا ينقصون ولهم بالذي لا ينقصون يا الله يا مقلب القلوب